contentement la ñu am saa su ne suñu jàkkaaroo ak yéen rawatina yéen ñuy wéy di ñu seetaan ñi leen ñu wax ngeen ñu di abonné suñu chaîne te activé li nga xam ne mooy cloche de ngir dugal ngeen defee saa waaye laata ñoo commencé dañ leen ñi déwénati di leen baalu àq màggalu Tuubaa gi ñu ngir képp koo xam ni teewee nga màggal gi ak ñaan yoo xam ne def nañ ko fo yàlla naka suñu borom nangu si daraje Seydina Mouhamed si barke Cheikh Ahmadou décortique euh, doorati ak émission ak euh, sen euh, série Golden yem ak épisode 43 épisode 43 bo xolé laata moo commencé sax dañuy dellu en avant en arrière un peu si épisode 42 bi épisode 42 bi muy jeex ak mage bi mu convoqué ki nga xamné moy Matidem Mati Dem si benn espace public am lu ko won ba mati dem di yuuxu di jooy defoon na loolu yëpp seetaan nañ ko lan nit ñi lan lañ umpali woon ak la moo doon noonu kumpa gi foofu noonu mooy mage lan la war a mën a def ki nga xam ne mooy mati dem ba mu réagir noonu mais si épisode 43 bi boo xoolee bu baax a baax bi muy démarré mi ngi démarré ak li nga xam ne mooy revue de presse ak voix ay dara si revue de presse boobee yaa ngi gis ki nga xam ne mooy euh, euh, kii euh, mati dem li nga xam ne doon nañ ko wax si moom si li nga xam ne mooy revue de presse bi mooy Mati dem ndekkee dafa am jëkkër am far loolu yëpp bokk na si li nga xam ne loolu ce qui veut dire que kon mage li nga xam ne jox na ko ko li nga xam ne wan na ko ko muy video bi nga xam ne gis na ko ba yuuxu boo xoolee bu baax est que du li nga xam ni amoon na si li nga xam ni mooy euh, ni mu fexee ba nga xam ne mati dem mati dem tas ak ABG te boo xoolee bu baax tas bi ak ABG ki nga xam ne mooy euh, mange moo ko waral te ay plan yu mu teg ngir jéem a fexe gëmloo kii di ABG que ne mati dem dafa am li nga xam ni mooy far am jëkkër am far ABG à maintes reprises saa a am wax problème ak kii nga xamné moy mooy Maty Deme problème yoy lay jógee te Mange moo créé kon est-ce que du lool la nga xamné ne loolu ak kii di AB ki di mat ki di mage won li nga xamné moy mooy Maty Deme loolu si euh, épisode 42 bi mi jeex début épisode 43 bi bo xolé ci loolu lañ débattre bu baax ki nga xamné moy euh, euh, comment dirais-je voix Ahmed Aïdara revue de presse bi mais ki nga xam ne mooy euh, Maty Deme ak avocatam bi Maty mi ngi doon jooy dina joy di méthode li nga xamné ne mage def nako bi dem na ci bo xamné ne mage safara la jëm bon kuy dem safara ko ni sama yalla xam mais xolam moo toll foofu xolam moo jeex si jafé jafé yi nga xamné mi ngi koy dund mi ngi koy dékku sa suné ne ki nga xamné moko tek moy teg mooy mage te à chaque fois bu yaakaaree ni dina jéem jot mage mage rebondir ak force kon foofu noonu am na raison bu baax dal ci kaw mage maire bu futtu la def bay jéem wax sa waxi porte plainte ba ki nga xam ne mooy avocat tamit daal di ne porte plainte teel na lool jamono ji ndax li ngay wax amaguñ ci preuve te ku nekk xam na mbir yoon bu amul preuve bu baax doo ci mën a yegg si ki nga xam ne tamit euh, mooy euh, kii di euh, ABG da boo ko xoolee bu baax dal na si kaw bu baax ki nga xam ne mooy mage si bi nga xam ne mooy affaire de revue de presse beeg yooyu noonu dal na si kawam wax na ba dënn bi jukk wax si lu ne ay presse c'est la Mage daal tamit ne moom et tout mais dal na baax si kaw Mage si jafe-jafe métti nga xam ne na kaa dund bi euh, source de délassement boo ABG moom la amoon ngir si Mage waaye si kaw seen xuloo boobu noonu boo xoolee Mage am na loo xam ne jëli ABG mais ABG wax na kat ku nekk xam ne ABG dafa feebar fiir boo xam ne mi ngi si euh, jeexantalu kii la feebar bi la nekk te li ko docteur yi pré euh, kii liñ ko prescrire maanaam du yàgg lool mu génn àdduna wuy ji boromam ceeta feebar boobu kenn xamu ko ku dul euh, doom doom ji si Gueye moo ko xam ak kii di Fadel dem ñoom ñaar rek a xam mais mage bi nga xam ne ABG mi ngi doon wax ak moom si mer googu ne boo xoolee moom am na lu mu remarqué si ki nga xam ne mooy ABG.

bu déggul bu xoolee day analyser xam naka lay rebondir xam naka lay réagir loolu yëpp si mage xam nañ ko si moom ndax ni muy doxalee ndax intelligence boo xam ne nekk na ci moom ak protection boo xam ne nekk na ci moom ba problème yooyu noonu yëpp boo xoolee chaque jour dama koy wax di ko waxaat problème yi am si série bi yëpp si ñi nga xam dañ bëgg a venger si famille Gaye mage moo ko waral te loolu yëpp xelam moo ko ko may ak noppam ngir mën a aar famiyam kon kookee di aar famiyam dem ba xam na di doog a am lu muy suspecté si jëkkër ji ne am na loo xam ne dal na ko taxamu ko kon ni muy réagir mooy noonu jooy la def tëdd si ko doom ji daal ne mi ngi xam ne ne mi ngi jiixa yooyu noonu yëpp waaye ki nga xam ne tamit mooy euh, Fadel Deme boo xoolee Fadel Deme mi ngi doon génn ci bureau journaliste yi attaqué ko te journaliste attaqué question bi ñu ko laajte mooy naam lu tax soutenir rakk ji ak yooyu noonu wax na leen lu tax sut wax na leen ni mu demee parce que nee na leen kii di rakk ji problème ak ABG bi mu am loolu non day nekul problème bo xam ne lu xam da kay dal ci ko mais juste que pour mën a lijjanti xam kuy baye domam mais benn journaliste laaj na ko nekk yow dafa mel ni da ngay protéger kii di ABG mais c'est normal kii di Fadel dem doxalee non parce que bo xolé kii di Fadel dem lepp lu mu am ak lepp lo xam mel nako ABG motax kon foofu des fois esprit de d'encouragement, un esprit de dépassement un peu ce côté boobu noonu ba reconnaissance tamit ce si li ABG parce que dès ba lu ko dal ABG Quand normal mu am réaction ABG qui dit comme Fadel ba ne dafa mel protéger ABG protéger parce que xam ABG xam caractère gëdd bi nga xam ne am na ko si réew mi ñëpp bëgg ko looloo tax kii di Fadel dem te rawatina moom mi nga xam ni mooy père spirituel ma lu nekk ci moom moo ko si def kon c'est normal mu noonu kon looloo tax kii di euh, Fadel Dème réagiré noonu di jéem a soutenir kii di ABG te mu xam ne kii di ABG li ko dese si àdduna bëreetul kon c'est normal mu doxalee noonu te xam na ne léegi te xamal ne journaliste ne ABG lenn rek moo ko ñor muy xam kii di bàyyi doomam xam. fan la dëkk ji fi dëkk ji féete tax ku xam ABG xam ne dafa yàgg xeex dafa yàgg xeex ngir njabootam dafa yàgg taxaw ngir njabootam kon loolu c'est normal mu réagir noonu kon boog dañ leen ñuy wax yéen ñu wéy dañu seetaan ngeen ñu wéy te acti ngeen ñu wéy di abonné suñu chaîne te activé li nga xam ne mooy cloche de notification bi ngir lu ñu dugalu ne ngeen mën koo gis ki nga xam ne tamit mooy James James Gaye moo wax Aïcha Fall gis nga leen dal na si kaw Aïcha Fall bu baax si ki nga xam mooy bëggante Aïcha Fall ba ne ko naka jox deuxième séance am mais di James Gaye ana bi nga xam ne yabal na ko kër Fadel Deme fofu tamit problème dara na am fofu non parce que kii di ana moom dafa ñëw ngir jël ay information si Fadel dem mais Fadel dem mi ngi commencé di dund amour parce que dafa tellement dafa ndox ki nga xam ne mooy yaayu doom ji ummi ba famille bi yëpp bëgg ko mais kii di ana gis ngañ ko bu baax mu dugg ci benn nekk am document yoo xam ne jël na ko fa document yi mu jël bokk na si testament bi nga xam ne kii di euh, Mati dem mooy bi mu sàccoon léegi loolu nag bi mu ko gisee jël na ko yóbbu ko si euh, James Gaye xamal na ko ne lii bi ba ko James gisee dafa tiit jaaxle mu ne ko li nga compréhense euh, ni nga doxalee ni noonu laa doxalee moo ko gisee maanaam testament ABG lu euh, muy ut kër Fadel Dème te ñoom xamuñu woon ne seen cambriolage boobu leen cambriolé woon testament bi moo taxoon ñu cambriolé te kii moo taxoon ñu def ko kii di Mati Dème moo defoon lu nu mel la ngir jéem a insérer doom si testament mais foofu fu fekkoon sax am na lu muy insérer du doon dëgg parce que affaire parce que lépp si lay parce que dès lors que testament bi rek amatu droit amatu si légitimité boo xam war parce que yoon mooy def foofu James jaaxle na lool testament bi wër foofu eh, di dalee foofu noonu moom tamit kii di réaction ñam mais di ABG def nañu séance ak euh, le procureur benn le juge moins ku nekk ñaari partie ku nekk indi nga sa idée léegi juge bi ne li mu leen proposé mooy test de paternité te yaakaar naa loolu rek mooy solution bi test de paternité solution bi ngir ñu xam ndax eh, kii di Daouda Gaye Daouda Gaye wala Daouda dem ba ñaari sant yooyu ban la si jël ndax ABG mooy bàyyi wala déet te kii di ABG loolu rek lay wër parce que li ko desee te àdduna bëreetul te mi ngi wax eh, kii di eh, avocat wam ngir mu defaraat di testament bi parce que su fekkee Daouda Gaye daaw Daouda Gueye doomam la da koy dugal si testament te ko xam ABG xam kan lim lim li ko njaboot jaral ak li ko famille jaral waaye sa kër ah, kii Fadel Deme tamit Mati dem ni mu xoolee kii di aana réaction bi mu am foofu ñaaw na njort tuuti ndax kii. dafa ñëw pour infiltrer wala diet ta ki nga xamni moy wati dem Deme bi nga xamni ni nako ci li nga xamni ni ci si dëkk bi mom na kan terre yi nga xamni prometteur promettre ndax dina si mu nekk waaw lepp oké na fofu nonu ban dil la mat dem di préparer encore lan la indi wat lan la nar ak bu amé naka la li di famille gay di riposter ak mage ndax ki nga xam mage feebaru jëkkëram ji nga xam ne mi ngi commencé di soupçonné doy na sëkk sëkk problème ndax dina si jéem a doole leneen am déet li si kanam rawali gët kii di ABG doxantu na mosquée de la divinité match fekk ka fa ñu ànd bras dessus bras dessous daal di dox jàll daanaka boo xoolee boobu si jeexitalu série bi la si épisode 43 bi ñu daal di ànd ay dox ak yooyu noonu yëpp peut-être foofu noonu si épisode yi di ñëw dinañu toog waxtaan moom mii di match jéem ko xamal ne ko xam naa ne am na lu la dal waaye waroo maa na bokk yooyu yëpp peut-être yi di ñëw dañ si xam dara ak kii di jam si gay tamit euh, problème bi nga xam ne am na ko muy testament bi naka la nar a réagir rek Fadel dem li nga xam ne ñu ngi commencé am benn euh, benn attraction bi ñoom ñaar si diggante li nga xam ne mooy seen feebaru papa jeeg yooyu noonu yëpp mbokk yi fii la ñuy yem di leen jaajëf bu baax yéen ñuy way duñu seetaan à travers Ivision TV seen émission décortique épisode euh, golden épisode lañ leen indiloon di leen jox dig daje beneen yoon di leen wax tamit ngeen way di abonné te activé li nga xam mooy cloche de notification bi Mourtala ànd woon ci kàddu gi caméraman mi Daaru Ndiaye ngeen jëf